waaye booy puy booy puy moo ñëwoon ginnaaw takke la ñu jàkkaar lool grand combat baa ngi noonu Zoulé Assane Ndiaye quatre taxay booy puy booy puy cokkaas na ko léegi waaye taxay na tekk di ko déglu mbokk yi booy xool taxay moo ko xaw a ëpp tuuti booy puy ku nekk ak ñu xool sama am taxay booy puy booy puy ngi dox ci kawam booy puy sànq nee na ma taxay mënul bëree te dafa am keneen ku ma bëgg a laale biiram saar fecc rek la booy puy taxay mën waaye bu duggu moo ko daanee ba noppi dina la keneen ki ma bëgg a bëyal waaye est-ce loolu dina sotti mbokk yi ñoom ñaara ngi ci diggi géew bi taxee booy puy jaw na jàppante taxa door na ko taxa door na ko ba kaaw kaaw yegagul taxa booy puy eh, taxa daan na ko da door booy puy daa jël ku booy puy daa jël ku booy puy daa jël ku dafa daw jël ko mu pompe ko pompe waat ko mu kaawoo mu ko taxee noonu taxee noonu. booy bi signature bi. ah. Eh, daf ma wax lu ma métti. lu la mais ma. tey bee la lu mu métti ah! yar. ah ba ku la ah! la xel. mais combat bi combat xam nga xam naa ni xam nga. da ne woon nga. lamb. yee xam nga dama ko doon wax. waaw. Ah. am na benn énergie boo xamante ne. yaa dama ne Lamine. ba mu ne ma naam. Lamine ba mu ne ma naam. ma ne ko Lamine. gis nga lamb. doo si nekkee. am si ay tolof tolof. yaa da ngay gën a entraîné. yaa pour ba ay say noonu lu ñu wax. lu ñu wax Lamine ba yow kii. man dama gëm entraînement. dama ko bëgg si sama biir xol. barke Mama Samba. yàllaay dogal. jaam mooy nangu. cër bi nga jox booy. waaw ñëwul ci cër moo cër bi. non yoon. ndax booy puy. jël na ma mais daf ma desee xam ndax góor yàlla yee day am liggéey métier bi ma yor nag maa ngi siy sant sama papa bu baax yee man sama papa tey de mu jëlee loxoom te ko sama kaw bopp yee dama jooy ndax loolu yombul si sama papa yee fi ma jëm sama morom yi nañ jël sama avance waaye ku ñëw ma jël avance am waaye mbay gi nii waaw lamb la